به عن طريق képp ko waaw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 toll muy université mën a topp sëriñ bi rek ñu ngi sant ñëwul sëriñ bi bayu kenn di ko teg ci loxol jëwul ñoom sëriñ si bi baax incha allah ndax li war a sant bi sëriñ bi junñoo ndax nee na lii naa la fi Cheikh Abdoulaye Mbacke bàyyi moom moo tax ñu ñëwee ba jublu ci yow ba xalaat ko dama njëkk a yónni ci sëriñ si bi mais naa xam ne lii ndax lii de bu ñëwee ci seen woote mooy li ñuy tuwaay la ci Serigne Touba jaay ñu ñëpp xam ni waaye lii rek li waroon ci war bokku si daa bëgg loolu ci jaay bi suñu tuwaay képp koo xam ne seen dërëm dem na ci lu ñëw ñëw ba ci say sët yàlla lay xëy di yow. kon nag nga leen góor Serigne Touba yëpp loo xam ne ko bu

de